Voilà, toujours Adouta Sek en train de représenter l'hip-hop Galsen 30 ans. On vous l'avait promis, hein, toutes les stars, les grosses stars. Sénégal dafa neex parce que d'ailleurs, am ay superstar ba pare gars yi ñëw l'interview interview quoi loolu dafa neex. Tiapi Doudou Guiss in the building wala alaikum maaleykum salaam tal rek. maaleykum salaam ñëpp ñi nga xam ne suivre affaire bi. di Doudou Guiss maa ngi big up mais mais star nga mais cool quoi da ngay nekkee gars yi normal amul problème man man du ma star sax. Billahi, du star damay jema takale am xaliss ni rek dem sama yoon loolu la jema a essayé nii. non xaalis baa ngi dina ba Dip nga ñew bok ci li nga xam Festa de h euh, année bi ñu def 30 ans de hip hop Galsen di sargal li nga xam te ne mooy hip hop Galsen nga ñëw représenté dignement jeune génération bi affaire bi noo ko gisee. waaw affaire bi rafet na parce que nekkul bi moy première fois ñu koy tek nekkul bi moy deuxième fois nekkul bi moy troisième fois comme li ko olof di waxe lu yag deug la donc mu nek ben événement bo xamante dañ koy rafetlu bu baax on respecte bien le projet on respecte le concept et tout parce que bu ko ñeneen doon def benen leneen lañuy wax quoi. bu fekkoon dafa am yeneen ñuy def même chose que li leneen lañuy wax parce que yëkkati 5 millions je pense la ñu ren pour flow bi donc voilà c'est pas n'importe quoi respect à gars respect à Matador respect à Amadou Fall ba agriculture wa sa gars yi liggéey mais tamit da nga liggéey tey yaa porte porté drapeau jeune génération hip hop Galsen di ko yóbbu fépp ci àdduna gis na tamit bitim réew nga xam nga ñu bokk bokk ay Bercy bokk ay tournée xam nga ay ci ay concerts ak lépp mais yo, nan ngay dundé porté drapeau bob noo koy dundee en tant qu'ambassadeur quoi. waaw bon xama nga ba léegi defaguma ben ben scène bo xamné man mako ko defal sama bopp à l'extérieur à part à part fii sous sous région bi Mauritanie Gambie et cetera mais ma ngi ñaan yalla def ay affaire yu. gëna mag loolu quoi loolu loolu noonu laa ko gëna gisé parce que damay gis ne à chaque fois defaguma ko quoi mhm. donc yalla baax na ñu ngi ci ñu ngi ci tang yoy quoi inshallah yeah. un mot pour Vibe Radio. yeah big up a Vibe Radio. xaw na dama koy ñaar ci suuf nga neel amin rek. amin jaajëf Dip. Wës wës.